waaw bon euh, man ci kër gi laa nekk hmm, di fi taskatu xibaar euh, wax dëgg yàlla euh, ñu gis aussi sénégalais yi sympathie bi ñu am hmm, jëmee ci kër gi parce que ñun en tant que employé ci kër gi bu ñu taxawee depuis Sidi Lamine Niass ñu bokk ci nag ñoo xamante ni Sidi moo leen formé parce que dund nañu ak moom waaw vraiment. mu am lu mu def ci ñun muy gëm suñu bopp muy tout le temps mu koy faral di wax rester au côté du peuple sénégalais waaw loolu nag aussi dafa am jeexital bu mu indi ci liñ éditoriale Walf mooy li si di bàyyi woon ñun aussi euh, loolu la ñu pérenniser loolu la ñu téye aussi pour lekk boobu du mës a disparaître <coughs> waaw xam nga euh, Walf nag noonu la mës a mel Walfadjri tout le temps pouvoir bu ñëw da nga koy jàppee ennemi parce que Walf mooy mooy mooy c'est un contre pouvoir il faut faire la part des choses nag entre un euh, contre le pouvoir ak contre pouvoir contre pouvoir mooy tele boo xamante ne day taxaw di wax di wax di wax nguur gi fi baax fi bon parce que da ngay dégg souvent si di mu daan wax le train qui arrive n'est pas de l'information l'information c'est le train qui n'arrive pas à l'heure mais gis nga problème bi mooy c'est la ligne éditoriale de Walf qui dérange parce que se gis nga mënuñu euh, une certaine presse nga ngeen baal ma ci kàddu gi jaay seen ngor gis information dëkk bi tàkk duñ ko wane mais xanaa dëkk yi dëkk yi am guerre hmm, Ukraine mais dañoo wane image mais wane wuñu ay direct ak yooyu mais wane nañ image li xew Sénégal nag bu ñu bëggee ba tey ji muselé une une presse ba presse bu dootul wax li am ba presse bi aussi lépp lu muy wax day fekk muy arrangé nguur y'a problème xam nga Sénégal li li metti nag mooy euh, da ngay wax dëgg hmm? gis naa mag mu ñàkk fayda boo taxaw naan Walf dañ ko war a retirer licence am waaye koo xamante ne xas nga yonent bi saaga ko wax lu bon ci yonent bi kooku loo wax hmm? mooy mag mu torox loo wax du saf sénégalais yi waaw mais nag li ma bëgg expliquer foofu mooy benn ñoom nañu xam ne ligne éditoriale Walf du mës a changé fi ñu nekkoon même bu fekkee dañu tëj Walfadjri yi nañ ko tëj parce que Walf af mbiru askan wi la mais suñu ligne éditoriale du mës a changé suñu taxawaay ci askan wi du mës a changé et puis aussi on n'est pas là hmm, pour le pouvoir ni l'opposition mais on est là pour le peuple sénégalais waaw mais xam nga loolu aussi euh, bi njëkk mooy euh, gàcc bu doon rayee bi sëñ Mountakha joxee juróomi millions yi am na ñoom dañu waroon dee parce que jàngat bu rëy mi ngi ci loolu sëñ Mountakha Mbacké euh, ñëpp xam nañ ne tey jii li mu représenté ci Sénégal saa yu situation demee ba métti mu jëkk wax mu saafarawu mu yëkkati juróomi million jox ko PDG Walf am na lu tax. parce que bu ñu gisee askan wi seen i ñaari dërëm seen juróom nangam ak nangam parce que jàpp nañ ne Walf injustice la subir parce que gis nga bu ñu naxante quoi bu ñu naxante Walf jugul taxaw ne euh, damaa soxla ndimbal non non non non suñu dignité ak suñu ak ak éthique permettre ñu naan dañuy soxla déedéet askan wi ñoo ne Walfadjri yi keroog ñëpp a ngi toog di seetaan bi événement yi amee keppaar gi moo amoon dégguñ fa lenn loo xamante ne. appel à l'insurrection la wala image bu ñu wane la waruñ koo wane parce que c'était la rajo li gën a garaaw nag mooy Babacar Diagne mi jiite CNRA mais ne man coupé wu ma signal dañoo jéggi Babacar Diagne coupé ko kon ça veut que décision bu jugee ci kaw la ñu ne nag Walf nag nañ ko tëj benn nañ ko muselé benn yoon. média dina waaw mais xam nga euh, gis nga média amul amul amul mission pour ranger ci côté. média dafa am mission pour wax askan wi dëgg. waaw gis nga euh, tey jii boo boo xoolee euh, li xew Sénégal mais ñëpp gis nañ ko une presse boo xamante ne tey jii mais xam nga xam nga dégg nga sax ñeneen ñi naan faj Walfadjri télé Sonko la da nga koy dégg ñu ne Walf télé Sonko la. ñii dañu naan boo am na ñu nekk wàllu Sonko leen di fay ay fen la ay kàcc la c'est pas vrai. waaw 2011 bi bi ko bi ko bi ko télé yëpp nanguwulee jël. fii la toog mook li Tanor ak benn plateau tey jii non mais xam nga Walf aussi changé wul ñun ñun du ñu changé du ñu changé. te bu fekkee dañu yaakaar ne xoqatal yi ak nappaate yi ak yu ñàkk fayda yi mooy tax ñu reculer mais mais mais il se fourre le la doigt dans l'œil mënul nekk ñun li tax ñu jóg mooy dafa am benn mission boo xam mission régalienne la bu ñu askan wi dénk ñun ñu toog fii ëpp ñu xam-xam ñëpp ah mais dañ fi toog ngir suñu askan te askan wi moo ñu delloo loolu gis nga boobu bi nga fi taxaw ba léegi ñi ñaa ngi dugg di jëm ci kees bi di dugal seeni i 1000 francs i téeméer seeni seen nangam pour wax ne état loolu message la boo xamante ne président da ko war a mooy Walfadjri fajari alalu askan alalu askan wi askanu Sénégal ñoo ko moom te yii ñu def yëpp aussi mënul tax mënul tey wal Walfadjri dee parce que mi ngi ci xol yi encore une fois beneen message bi mooy presse bi gis nga maintenant euh, dañu nekk dañu dañu nekk une presse divisée waaw ñun journalistes yi ku nekk am na am na fu ñu la féetale waaw te loolu aussi mooy danger bi waaw nga gis euh, ñu tëj ay journalistes taxawaay bi ci yenn organise war a taxaw taxawuñu ko ñu tëj Walfadjri un communiqué ngay gis benn communiqué bu ñu jël teg ko la presse n'est pas unie Sénégal la presse et divisée par les par nos hommes politiques te nag euh, ay na yéwén bu fekkee ne boo waxee dëgg ñu ne soo ko nga faral hmm? mais bu leen neexee parce que nit ku subir injustice ñu gis loo xamante ne c'est un dossier vide nga taxaw am mais gis nga nit da ngay assumer ses responsabilités ci sa askan. xam ne lii ay kàcc la dara lu ci dëgg nga jug mais en tant que def nga investigation en tant que journaliste jugal taxaw ne lii du dëgg boo ne du. moo plaidoyer may def euh, benn plaidoyer lay doon ci askanu Sénégal ci sunu homme politique ak sunu religieux yi muy jàmb stabilité jàmb amul amul amul njëkk li fi xewoon du fi amaat force sera à la loi xam nañ du dëgg. parce que li fi xewoon lu ko raw xew xew na fi te leneen mën na fay xew kon nag ñun ñëpp nañu trouver un consensus autour d'une table parce que crise yi fi am yëpp ci àdduna dafa mujjee ci table waaye nag nañ jiital dëkk waaw na kilifa diine jóg homme politique yi aussi bàyyi du les xam ne réew mi ñoo ko bokk bu kii xëccee kay xëcc fi mu jëm du neex nañu toog autour d'une table waxtaanee Sénégal est-ce ngi dégg li nga xamante ne mooy dossier politique yi ñu teg ko fële. mais plus de 700 détenus ci kaso bi ay gor ngay lijjanti xarum tabaski te fekk na sa sa morom yaa ngi ci mais mais mais mais doo comprendre des fois dama dama ko wax démb sama benn collègue mu ree ma ne ko booy man dama am problème dama bëgg am invité sama plateau waaye ñi ma war a invité ñu ngi ci kaso bi non je te jure dama bëgg invité am sama émission normalement mais j'ai des problèmes maintenant pour am invité ndax ñi ma war a invité ñu ngi ci kaso bi kon li ñu bëgg wax mooy. Hmm? état na revenir à la raison état du doole doole ji yàlla boo ko yor la souveraineté appartient au peuple te peuple bi wane na ko kon yii ñàkk fayda yii bu mu taal Sénégal nañu bàyyi justice bu ñuy instrumentaliser aussi presse bi ñu bëgg diviser presse bu nekk ak li éditoriale am waaw bu fekkee ñee dañu gis ne ñoom dañu war a tàgg Macky maral koy dàllam bu leen neexee ñun musuñu changé te bu Sonko fal woon nga xam fekkoon moo falu fi ñu taxaw la ñuy taxaw bu defee loo xam du askan wi ñoo jug wax ak moom parce que nous sommes là pour la vérité nous sommes là pour le peuple sénégalais jërëjëf.